jot na ba taftal ñaari simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg ak benn ponk la gi fi nekkoon euh, njiitu la i ay jamono di président Lamine Diack euh, daan nañ ko ñeenti ati kaso yoo xam ne ñaari sursis la euh, mu daal di fay itam lu toll ci téeméeri junni ci ay euro muy 500000 euro loolu nag di ndàmpaay loo xam ne war na koo jox foofu ca Paris moom président Lamine Diack dañ ko téye woon foofu ca tugal atum 2015 ba tey tey ji ci àllarba ji suba euh, la euh, layoo bi nag daal di daanu daañu euh, ànd ak ci biir xibaar yi Cheikh Sidou Sylla defaat tam seetlu ci mbir mi mbokk yi li mooy benn ponk bi fi gën a fës ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee président Lamine Diack euh, dina tëdd euh, daan nañ ko ñeenti ati kaso yoo xam ne ñaari si lay doon ba noppi itam mu daal di fay téeméeri junni ci ay euh, euro di xaalisub Europe moom président Lamine Diack gite woon fi I2AF ñu ko doon toppi lu jëm ci wàllum guerre teye woon ko ca France toppoon atte bi atum 2015 ba léegi tey jii ci ba ji fukki fan ak juróom-benn ci weeru sàttumbar ci la layo bi daanu dinañu dégg ci biir xabaar yi Cheikh Sidou Silla toogal ñu foofu ci réewum France comité di ab kuréel boo xam ne dañ ko fee taxawal euh, ngir ñu bàyyi euh, président Lamine Diack ne ñu dañuy wéy di wax ne euh, des ko war a bàyyi ndax lañu gis rek mooy nu koy toppee defu ko Salam Touré ñu gën ko xam ci tuuti li mu jàpp rek mooy xeex bi dafa mel ni tey lay soog a door mu nekkoon ganuk info du matin ci télévision Futur Média dañu koy teewlu ak Cherif Dia. métti na lool si ñun wax dëgg yàlla suñu mag la bu baax bu amoon fu mu ñu féete woon waaye loolu la yàlla dogal ñu nangu ko di def nag ñaan ak di fexe ba nga xamee ne yàlla génne ko ci loxo yi mu nekk bi mu dellu si si njabootam moom daal la ñuy ñaan. tribunal noonu la si dañay daan fii nga defaat appel. ba keroog muy jeex ba ñu koy kase ba ñu dem cassation mais loolu xëj na dina yàgg waaye xam naa ne fi mu wékk moom moom ñun sax ñu am lu ñuy lu ñuy lu ñuy métti. mais moom doo yëg-yëg mettit ak jàqare te kaar macha allah. su fekkee ne wax affaire dem na ba si foofu boobu niveau boobu daf ñu échappé ñun est-ce que sax quelque part échappé wu loon suñu état au départ mais l'état s'est ressaisi bon mu ñu ngi def li mën def. pour vraiment delloo ko ci sagoom delloo ko ci ci ci njabootam. justice française xam nga kaabu bu mel nii am na foofu Platini ñu jàpp ko sonal ko tuuti bàyyi ko mu dem ci njabootam. waaw mais loolu mën nañ ko defal suñu président mag la suñ ko soxla woo ko waaye ñu ngi ko téye foofu boobu ba ba tey waaye defu ko dara defu ko dara c'est que wàññiwul dara ci ci ci ci gëm-gëm. aywa ñu des ba tey moom maa ngi daan leen atum 2015 ci lañu ko euh, loolu ñu tubaab naan mettre en examen foofu ci réewum France tey ko fa di xool enquête bi di topp ay acte ak yu ni mel moom président nu mu fa demee ak itam nan la tëddee tontu lii ak Maimouna Ndiaye moo ñu ko nafraatal muy affaire bu ñu yóbbu ci yoon mu juróon coow loolu mooy dossier wu Lamine Diack ki fi nekkoon jiital fédération internationale bu athlétisme janoo woon na ak juge bi ca Paris li ko dalee fukki fan ak ñett jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier moom doomu réewu senegal boobu nga xam ni ñu ngi ko doon tudd ca mbirum guerre ca i liñ koy toppee nag bu ñu sukkandikoo ci ñu yoroon dossier bi ci wàllum athlète la li ko dalee 2017 ba 2019 scandale boobu ñu jàpp ni ci wàllum dopage la ay athlète yoo xam ne ña nga fare ca Russie ci weeru juin atum 2020 ca procès ba ñoom procureur financier yi li ñu laajoon rek mooy ñeenti atu kaso ak amande boo xam ne ñi ngi ko nattoon ci téeméeri junni euro patron athlétisme mondial bi nag ay atam tollu ci juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaar moom ak ñoñam bi di Nasser al Khelaifi ñoom ñëpp dañ leen mettroon en examen ci leneen loo xam ni moo nekkoon ay droit yoo xam ni dañ ko attribué woon organisation coupe du monde atum 2026 jàpp 2030 bi mu janoo ak juge bi moom euh, ki fi nekkoon jiital I2AF li mu waxoon rek mooy moom leader la te leader lay mës doon ci boobu la janoo it weddina tuuma yi nga xam ni dañ ko tegoon ci ndoddam mooy rek fonds yooyu nga xam ni bàyyeekoon na ci yi dañ ko doon jëfandikoo ngir ay campagne politique fii ci réewu Sénégal loolu lépp daf ko tegee na la ca suuf bu fekkee ci mbirum doom ji la Papa Massata Diack moom nee na laalewu ci benn yoon ba bi ñuy ndar kepp procès bi kàddu yooyu ci la sax ci biir dossier bi nag gisoon nañ ci lu lëndëm lëndëm bi ci njëkk mooy chantage bi nga xam ni dañ koo jàpp ne dañ ko doon teg ci athlètes yoo xam ni dañoo fare ca réew Russie bi ñu xaymaa koppar yi nee nañu ëpp na ñetti million d'euros avocat yu Lamine Diack nag ci procédure bi yëpp dañoo tegee euh, liñ ko doon toppee fële li ñu doon sàkku rek mooy ñu bàyyi seen client bañ ko toppee ti dara président Lamine euh, Diack euh, euh, Abdoulaye Thiam jiite ANPS di association de la presse sportive mi ngi ci bu mu jokkoo gi Abdoulaye ñu ngi lay nuyu Abdoulaye Thiam Abdoulaye Thiam bu ñu ko mënee làmbaat mooy président ANPS association de la presse sportive moom it mi ngi ci bu jokkoo gi ñu fas yéene waxtaanee dogal bi wadd Abdoulaye Thiam Abdoulaye di fàttali ne président Lamine Diack euh, li mu liggéey fii lu jëm ci wàllum tàggat yaram bari na bokk na ci euh, doore na nekk li nga xam ne moom mooy athlète nekk itam euh, ab football kat laata mu nekk coach maanaam entraîneur jiite itam club waaye nekk li nga xamante ni si moom mooy maire bu Dakar ba noppi itam daal di bokk ci parlement bi moom mi jiite woon I2AF liñ koy fàttali rek ne ñeenti ati kaso kaso lañu ko daan euh, ñaari nag sursis la ndax yeneen ñaari day tëdd am déet loolu la ñuy fas yéene làmb euh, fii euh, ci kanam ak Cheikh Sidou sila waaye daal jàpp leen ne layo ba noonu la ëttu àttekaay boobu di tribunal ba ca Paris génnee ne président Lamine Diack daan nañ ko ñeenti ati kaso ñaari sursis la ba noppi itam mu fay téeméeri junni ci ay euro loolu nag buñ ko xaymaa ci ay koppar fii ci franc CFA dina bëri dinañ ci dikkaat fii euh, laata xibaar yi euh, di jeex ñu wax itam ci leneen euh, ci diwaanu cees kër maam El amadu Amadou Sakhir Ndiéguène gox la boo xam ne fi mu ne nii mbënn ma sonal na askan bi taw bu bari moo tax ba ay kër daanu yàqu-yàqu yi naka noonu ñu ne sax sëg ya ci boppam ndox ma dafa dugg ba indi fa ay yàqu-yàqu ba tax na délégué quartier ba ànd ak itam ñi nga xam ne ñoom ñooy wallu quartier bi rek la ñu ñaawlu mooy patt pataaral gi nga xam ne kilifa yi amal nañ ko ci jafe-jafe boo xam ne moom la ñuy dund ci diwaanu Thiès gox bu ñu naan euh, kër maam El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène Cheikh Anta Diop ak Sey Latir ñoo fa doxantu ngir yéen. boo duggee ci quartier bii di Kër Maam El daanaka miir yu bëri ak ay néeg dañoo daanu fii de ndox maa ngi fiy taaju ba léegi askan wi yeewoo ci quartier bii de nee nañ waa Kër Maam El Hadj sonn nañu. jafe-jafe yi nag bëri na. lépp li ko indi lépp du dara du canal bi waaye li ci gën a mooy kër yi nga xam ne daf ciy dugg. te man kër gu ma ci dugg rek wax dëgg yàlla damay am yërmande ci ñoom parce que damay xam ni ndox fu mu dugg ci kër bu yàqulit salte ndox mam la muy bàyyi suuf sa jàngoro la rax ci dolli nag la muy yàq dugg naa ci kër yi man ak comité de quartier bi def naa cinquante sept maisons foo ci dugg ñi ay dégâts matériels lañ sëg moom moom daf ko romb parce que am na ci ay bàmmeel yoo xam ne ñu ñoo defaraat parce que xale yi ñu waxee ne ma leen nañ leen dem defaraat ko pont lu mu jël mais ci biir penc mi dafa am ci kër yoo xam ne daanu nañ sax inondation yi nag laal na leen lool waaye nee nañ gisuñu benn kilifa boo xamante ne ñëw la fi te benn saafara buñ ci indi Mamadou Gassama nag di sàkku nag ci kilifa yi ñu teg yeneen i pexe defaraat beneen canal fii ci kër maam El ngir ndox mi man di dem. ndax fii dëkku kilifteef la ñu ngi ñu ngi nekk autour di xalif El Hadj Mounirou Ndiéguène moo tax mosu ñu ñëw dégg ñu coow waaye fi ne nii nag dafa ëpp fukki at ak ñett ku ko dund ci mbir mi mais metti na tey jii Thiès koo dégg muy wax. problème mu ndox mi danaan la kanaalu Kër Maam Alaaji li nu wax état bi mooy quand même ñu yeggale kanaal bi. ndox mu bari jugu ci quartier bi di Kër Maam El Hadj délégué de quartier bi di Ahmed Ndiéguène mi ngi sàkku nag ci kilifa yi ñu yoral ab plan orsec local ndax kilifa yi mën a indi saafara ci inondation yi nga xamante ni laal na quartier yu bëri fii ci diwaanu Thiès. lu siwaat ci xabaarub tey bi di président Lamine Diack mënu daan foofu ñeenti ati kaso ñaar yi di sursis Abdoulaye Thiam euh, jiite ANPS ANPS nag di association de la presse sportive di euh, taskatu xabaar yëngatu ci wàllum tàggat yaram mi ngi ci bu mu jokkoo gi Abdoulaye. Euh, dégg-dégg bi taxu ko euh, am doole loolu waaye bu fekkee ne yaa ngi dégg ndax mën ngaa indi seede ci li nga xam ne moom moo xew tey ca Paris euh, soxal président lamin Lamine Diack d'abord ban gis-gis nga am ci boobu àtte. man li ma mën a wax mooy que ne verdict bi dans tous les de figure bëtu mm, en tant que sénégalais nga xam ne xam am naa chance tuuti xam Lamine Diack mm-hmm. j'ai douté Euh, et je continue de douter ci fait yi nga xam ne dañ koy reprocher euh, yàgg naa ànd ak moom fu bëree bëree bëree bëri gis naa comportement am vis-à-vis des athlètes gis naa ay comportement am vis-à-vis ci li nga xam ne moom mooy euh, conseil IAAF gis naa respect ak considération bi nga xam ne ñi képp ku nekk ci athlétisme mondial bu mu am ci Lamine Diack gis naa aussi intégrité am gis naa liggéey bu mu jot def ci IDESAF avant muy nekk président IDESAF en deux en 1999 novembre ci décès bi nga xam ne mooy euh, Nebbiolo di doomu Italie mu remplacé ko après ñu réélire ko en mille 2001 réélire ko 2003 réélire ko 2005 réélire ko 2007 2011 ba 2015 mais vers la fin de son mandat ñëpp gis nañu taxawaay bi nga xam ne occidentaux yi taxaw nañu. ci kanamam pour gàkkal liggéey bi nga xam ne pour la première fois dans l'histoire ci waxuma la sax IDGAF mais ci histoire euh, histoire mondiale une un dirigeant africain noir de surcroît def jaloore bu mu fa jot def man loolu bétuma jaaxaluma parce que bind naa ko wax naa ko waxaat naa ko et je continue à croire que ces faits man mënuma ko gëm munuma kenn munuma gëmloo ko ne Lamine Diack day def lu ñuy woowee ay extorsion de fonds di jàpp ay athlètes parce que gis naa mu jàppale ay athlètes yu bëri gëmloo ma ne tey jii nii moom da jàpp ay athlètes di di di leen di di di leen laaj xaalis pour tëdd ci ay résultat yoo xam ne ñoom amoon nañ ko pour ñu bañ la daaneel. li ma li ma leer ba leer ci conférence de presse boo xam ne man fekkee naa ko en deux mille quinze Pékin te li may wax li je parle su le contrôle de journalistes sportifs yi fa nekkoon yëpp. mille 2011 def nañu ay passeport biologique ñëpp reconnaître nañu ko am na ay athlètes russes yoo xam ne dañ dopé woon ñu nekkoon ci situation bu extraordinaire où on les sanctionne mooy les Jeux olympiques de Londres 2012 dee nañu ak championnat du monde yi waroon am en deux 2013 fële ca Moscou te Moscou ñu amoon ñaari sponsor yu am solo benn banque ak retransmission bi nga xam ne benn télévision moo ko amoon mooy IDSAF dugg en faillite et loolu noonu Lamine Diack wax na ko en conférence presse devant tout le monde amul benn membre du conseil bu nekkul woon au courant mais bu loolu weesoo bu ñu organiser championnat Jeux olympiques 2012 organiser waat li nga xam ne moom mooy championnat du monde te man nekkoon naa ko à Moscou jël nañu ay sanctions ñu teg ko ci ay athlètes yi nga xam ne dañ lañ doon tuubal loolu ci diggante bi nag leneen ak leneen bu ci raxee Lamine Diack en tout cas man ci biiru conférence de presse loolu laa fekkee mu def ko. te gis naa nag ay journalistes yoo xam ne taxawaay bi ñu taxaw moo tax nag man ma amoon doute parce que gis naa seen ay papier ñun defuñu man je refuse d' être quelqu'un koo xam ne day nekk consommateur lépp ñu la jox rek nga consommé ko rappelez-vous bien le monde aussi integre journal boobu lu mu munti nekk boo xoolee ci ki nga xam ne moo ko sos di Hubert Beuve-Méry loo ko munta jox ci crédibilité bind na benn article tey le lendemain mu ne lu mu bind dara amu ci te fekkee wuñu woon li nga xam ne la ñuy jag waxoon nag ak procureur bi wala juge bi nga xam ne moo ko njëkkoon interroger donc jusqu'à présent je persiste je signe que fait yu koy reproché man dama ci douter am naa nag nakar bu rëy rëy rëy loo xam ne del del ndodd kii daan bi nga xam ne teg nañ ko si ndoddam mooy quatre ans mooy deux ans avec sursis et maa ngi xaar j'espère très bien que ces avocats vont interjeter appel pour ñu mun a casser verdict boobu très bien Abdoulaye Thiam ñu koy sant bu baax di ko gërëm may fàttali ne moom mooy euh, président ANPS di association euh, euh, de la presse sportive association nationale bi toppatoo lu jëm nag ci taskatu xabaar wala ba kër taskatu xibaar yëngatu ci wàllum tàggat yaram Cheikh Sidou Sylla itam naka noonu moo ñu toogal foofu ca réewum France foofu ca Paris fa àtte ba doon am ma fa woon du ñàkk ñu am ko ci biir xabaar yi laata ñuy tàgg tàggoo mu dellu siwaat itam ci dogal boobu nga xam ne euh, daanu na ba noppi itam ñu bëri euh, fii ci réew mi euh, ŋàññi nañ ko bokk na ci ku ñu naan Abdoulaye Thiam ak itam yeneen i collaborateur yoo xam ne jëflante nañu wala boog yàgg nañoo jëflante ba tey ñu des di jëflante ak président Lamine Diack jiite woon fi ay jamono i 2 ñu wax ci leneen muy sayet mi nga xam ne euh, wax na nag ci euh, canal boobu nga xam ne dafa toj doon dem ca dex ga ba tax na ndoxum dex gi euh, wàlli na ci ay dëkk yu ci mel ne ñu boot ca gannaaw furaaraat ca diwaanu Ndar géej bu nu sukkandikoo ci délégué bu sayet foofee ca diwaanu Dagana mu ne nag taw bi moom bokk na ci li ko sooxe waaye itam ab wan boo xam ne OMVS da ko def lu ci mën a am euh, ñu ne rek euh, OMVS yi boppam war naa ñëw dellu siwaat ci ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi jàppale leen dinañ ci dikkaat ci kanam laataaloo lu ñu jël ci buumu jokkoo gi euh, Serigne Mbacke Ndiaye ñu ngi lay nuyu. noonu ak yi nga xam ne moom moo daanu tey muy président Lamine Diack mu ñu tëj ñeenti ati ñaar yi di sursis ban gis-gis nga ci am. waaw gis-gis nga ci am de mooy comme presque Sénégal yëpp. ak euh, ñëpp ñi nga xam ne dañu bëgg justice bëgg yoon mooy métitlu ko métitlu ko bu baax a baax a baax parce que effectivement am na ñu bëri wax nañu ko dellu siwaat nañ ci euh, xëy na am na ku mel ni Michel Platini ak ñeneen ak ñeneen tuumaan nañ leen dara te xëy na ni ñu traité dossier bi traité wuñ ko noonu mais xëy na loolu it du fond question bi parce que olof yi dañuy wax ne du man donc bokk ba ci ku gën donc li am solo mooy li nga xam ne moom la suñuy avocat dama naan suñu parce que ñun ci Lamine Diack la ñu bokk donc li suñuy avocat wax loolu la ñu mën a jàpp parce que nit bu fekkee da ko tuumaal te amul benn preuve boo nga xam ne mën nañ ko teg ndax dañoo ni complicité passive euh, euh, nu mu tudd ci ko passive maanaam loo nga xam ni xëy na même bu ko deful it mën nañu njort ni gis nañ ñu ko doon def te aayewu leen xam nga loolu njort la te tribunal du doxee ci njort tribunal day doxe ci ay firnde preuve yu wóor ni lii jël nañ ko jébbal nañ ko diw loolu amul ci dossier bi jusqu'au moment ba fi ñuy wax ni gisuñu ci lu loo nga xam ne lu mën a firndeel loolu ndax nee nañ corruption passive corrompre rek na maanaam ger goo nga xam ni donte yow defoo ko gis gekki ko doon def bu la yëgoon gekki ko doon def dara firndeelu leen ni gis na ko dara firndeelu leen yëg nañ ko donc loolu muy benn ci bi ñaareel bi également euh, bu fekkee ni nit dañ ko tuumaal ni yow dañ laa ger am na ku ko ger donc mënuñu bàyyi ki ger jàpp ki loolu muy beneen affaire boobu ni ko tubaab yi waxee y' a pas de corrupteur y' a pas de corrompu sans corrupteur mënuñu jàpp le corrompu ba pare bàyyi le corrupteur mais li ci am solo tey olof dañ ne bu dox tuuroo rooti waata fi sëf parce que ñun li am solo ci nañ fexe ba suñu lami deeg dellu soit suñu loxo naka lañ koy defee avocat yi ñu ngi ciy xeex état bi aussi nañ ci jàpp ni ngi ci mën a jàppee lépp loo nga xam ne relation la loolu nag état buy jàpp ci mbir ku xam ne du doon loo nga xam ci loolu nit ñi di dégg mais am na façon boo nga xam war nañ ci mun a jàppee li nga xam ne moom nañu yoon may aussi ñu continuer di ko def parce que loolu ñu wax ni mën nañ ko ko woyofal am démarche bu ñu ko woyofal ko ba ñu mën ko libérer nag at yi mu am loolu yëpp defi naan ay solution nga xam buñ ci bàyyi benn nañu jàpp ci yëpp yàlla mun ñu suturaal pour que suñu doom mën a dellu si suñu loxo Serigne Mbacke Serigne Mbacke Ndiaye ñu sant ko bu baax gërëm ko jur ci euh, bu mu jokkoo gi keneen koo xam ne yàgg naa jëflante ak euh, ki nga xam ne mooy président Lamine Diack muy grand serigne bu Ndakaaru di Abdoulaye Makhtar Diop ñu ngi lay nuyu. grand serigne grand serigne bu ndakaaru moom la ñuy euh, dalal ci bu mu jokkoo gi bu nu fàttalikoo sax wala bokk bu nu xoolaatee taarixu euh, Sénégal yàgg na nañu jëflante su ma juumulee euh, atum 1978 jàpp 80 nekkoon na itam ku sosoon lool ci président Lamine Diack directeur de cabinet su ma juumul temps jamono yi mu nekkee maire bu Dakar moom Abdoulaye Makhtar Diop comme lam ca mën a indi seede ci Lamine Diack bari na ñu xoolaat ko ba xam mu ngi ci bu mu jokkoo gi grand serigne Grand bu Ndakaaru euh, moom la ñuy làmb léegi léegi ñu jël ko euh, moom nag euh, président Lamine Diack ñu ngi koy wax ci njàlbeen nga ay casquette am bari na lu jëm ci wàllum tàggat yaram ndax doon na li nga xam ne moom mooy athlète athlète nag saut en longueur la ci doon lañ ko ràññee woon lool ba ca noppee dugg na lu jëm ci wàllum football nekk na itam. entraîneur maanaam coach ñuy tàggat euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu euh, ci wàllum euh, tàggat yaram mu ngi noonu grand serigne bu ndakaaru di Abdoulaye Makhtar Diop mi ngi ci bu mu jokkoo gi grand serigne mu ngi noonu mu ngi euh, euh, daw ci ligne bi xam naa euh, dinañ ci ñëw fii ak xibaar yi di jeex ñu degte leen rek li nga xam ne junjoon nañ leen ko mu jëm ci wàllum sayet ak ndoxum dex may wàlli di dugg ci dëkk yi boote ci furaaraat ca diwaanu ndar ña nekk ca sayet nag ne taw bi naam indi na ko waaye ab van boo xam ne OMVS defar na ko moom moo yàqu waa sayet di sàkku rek ci ombs di organisation kuréel googu nga xam ne di toppatoo lépp lu jëm euh, ci dexuk euh, Sénégal ñu jàppale euh, askan wi Awa Niang ingénieur délégué la ca SAED bu Dagana ay kàddoom ak Ousseynou Diop ak Habib Seck. village de Fourarat dafa jot ay pluies yu exceptionnelles hmm. loolu nag du Fourarat kese dafa wër dëkk bi yëpp wër àdduna bi yëpp parce que ren sunu poste pluviométrique yi nekk ci délégation yëpp sont largement excédentaires hmm. buñ ko comparé par rapport ak daaw en moyenne bu ci nekk daaw li nga boo jotoon benn daaw ren yaa ngi ci ñett loolu nag aussi fu mu daanu il faut s'attendre à des inondations leneen li ñëwaat yokk ci xar mi karaw nag mooy village de Fourarat dafa am benn chenal bi ñuy woowee KD2 nga xam ni da ko traversé mu bokk ko ak le village de Xën ak le village de Diawar malheureusement Fourarat nekk dans une zone basse léegi nag ñaari facteur combinés yooyu ñoo jur nag dëgg-dëgg conséquence bi nga xam ni moom mooy inondation donc aussi lii andige ñaar yooyu yaakaar naa mën nañ am yaakaar ni aussi 15 yi des rawatina kd ombs aussi ñu ngi ko ciy tàllal loxo pour que aussi projet yooyu ñu ñu ñu ki mën cee jot gaaw mën a andige war Grand Serigne bu Ndakaaru Abdoulaye Makhtar Diop mi ngi ci bu mu jokkoo gi Grand ñu ngi lay nuyu. gis nañu li nga xam ne moom moo euh, daanu muy àtte bu euh, président Lamine Diack euh, bu ñu xoolee nag sa diggante ak président Lamine Diack yàgg na su ma juumul ngeen ba mu nekkee maire Ndakaaru nga sësoon ci moom ba noppi nekk nga li nga xam ne moom mooy jëwriñ bu dénk wàllum tàggat yaram su président Diouf te itam gis nañ taxawaay bi mu amoon ci wàllum tàggat laata ñuy commenté li nga xam ne moom mooy àtte bi ban seede tey wala ko yan kàddu nga nu mën a jox ci ki nga xam ne moom mooy président Lamine Lamine Diack. man daal su fekkee foofu foofu nga bëgg ma waxee lu gàtt la lu wér la loo xam ne réew mi ma koy seede nit ku baax la ku julite la ku jub la loolu Lamine Diack ci la màggee ci la yaroo ci lañu ñu moom lii nga xam ne nag moom nga wax ne moo ñu séq moo dox suñu diggante dama jàpp ne dox na ci digganteem waa Ndakaar ak waa Sénégal yu bari ci wàllu dëkkandoo wàllu xaritandoo wàllu màggandoo kon nit kooku mooy Lamine Diack ba fi ñu tollu tey lii nga xam ne nag moom la tubaab yi àttee man dama koy mettitlu di ko naqarlu ànd kook njabootam ànd kook ay mbokkam ak sénégalais yi ndax dama jàpp mbir ma ba mu tàmbalee la ñu andi ndëgg sërëx boo xam ne kuñ ko tàllaloon tamit doo ci mën a génn lu tax dangay seet li nga xam ne moom lañu teg ci kawam benn bi dañu ne dafay dafa dafa am ku mu ger ñaar dañ ko ger ñett dafa am ñu mu àndal luubal xaalis ñeent dafa am foo xam ne dafa jël pour pour seetal xaalis bu wér muy blanchiment d'argent dama wax yooyu ñeent yooyu boo génn ci bi daanu ci bi boo génn ci bi daanu ci boo génn ci bi daanu ci beneen moom ñuy génn kon laltaay gi dafa yàgg mënul woon génn wante man dama jàpp woon ne tubaab yi ba ñu tàmbalee téye ko boobu juróomi at wala lu ko ëpp mënul génn France loolu doyoon na daan ginnaaw bi nga xam ne yàq nañu dem ci àddina bi yëpp siiwal ko ci àddina bi loolu doyoon na ci ay daan wante ñëw bu fii tey nga ne ñeenti at laa ko daan ñaari at yu sursis parce que ñi nga xam ñi nga xam ne xamuñu droit xamuñu droit pénal dañu foog ni sursis du du ab ab tëj da ngay jàpp ne Lamine ñeenti at lañ ko teg ñaari at yu sursis yooyu amul solo man li nga xam ne moom moo métti mooy ñu tëj ko man dama jàppoon ne tey jii buñ koy attee dañ naan bàyyi nañ la moo tax daal jàppale ne man lu lu ma métti la maa ngi yaakaar na te loolu sax incha allah mooy am te ay avocat dañ taxaw pour def appel. Euh, Grand Serigne Abdoulaye Makhtar Diop Grand Serigne bu Ndakaaru ndax yaa ngi may dégg. maa euh, naka la Sénégal mën a def ba indiwaat ko fii euh, nga xam ne moom mooy réewam ndax am nañ possibilité wala boog taxi jéege yoo xam ne dinañ ko mën a indi fii mu jege li nga xam ne moom mooy askanu Sénégal. waaw dama xamul ndax xam nga dafa am lu ñuy wax exéquature ci droit exéquature xam naa loolu doon na diggante Sénégal ak France. mais foog naa loolu ba lañ ci mën a egg foog acte bi jeex maanaam bu fekkee ne avocat mii def nañu appel bu ñu defee appel ba ñu àttewaat loolu nag foog ngeen seet ñi nga xam ne ñooy spécialiste de droit seet ndax bu ñu defee appel te ñoom teggiwuñu daan yi ndax dañ ko mën ni andi andi Sénégal fii ndax xam nga wax nañ Sénégal ne woote nañ ko loi bu bees boo xam ne am na daan yoo xam ne bu ñu ko daanee nit kenn du ko yóbbu du ko tëj fenn dañ koy bàyyi ci ci këram defal ko bracelet du sori fii la yam fii la yam fii la yam mhm. loolu moo ëpp sutura moo ëpp jàmm su fekkee ne exequatur bi nga xam ne Sénégal si ñëw na ko ak France mhm. mun na bu àtt bi jeexee mu ñëw fii loolu état Sénégal war na cee mën taxaw jërëjëf grand serigne bu Ndakaaru Abdoulaye Makhtar Diop doon indi kàddu seede jëmale ko euh, ci euh, président Lamine Diack mi nga xam ne fàttali ñeenti ati kaso ñaari sursis la ne ñu euh, ñaar yi da koy tëdd ñu fàttali rek ne mi ngi juddu ci atum 1933 ci Ndakaaru kon jamono yi ñu koy daane mu tëddi kaso am na juróom-ñett fukki at ak juróom-ñaar. ñu wax ci leneen muy cité Cyprès ci diwaanu euh, Mbaaw foofu nag euh, askan wa ñoo mer bu futt ne ñu oto yu mag yooyu fekk baax réewu Mali bëggatuñu mu taxaw ci seen boori kër jafe-jafe neen la leen di indil su weesoo sax ñàkk euh, kaaraange gi ñu nemmeeku alam gi da cay sonn lool ba tax na itam ñu daal di dajaloo rek méthode lu ni waaye takk der yi bàyyiwuñ leen fa dañ leen caa fekk daal di tasaare mbooloo ma lu ci mën a am fexe nañu ba jot kenn ci ñoom nekk foofu ca cité Cyprès ay kàddoom euh, mi ngi ko dénk euh, Asmalik Diop. pour protester contre la situation d'otage qu'on nous fait que les garages maliens avec la complicité du port de Dakar nous imposent. Il y a deux ans, la même situation s'était produite. Nous avons eu des réunions avec le directeur du port en personne, et le responsable des garages des Maliens et Image Mali. il était convenu. Euh, bu baax a baax euh, ci élément bi kooku wax Daouda Sow la moo yoroon kàddu waa cité euh, Cyprès ci français ki yoroon kàddu gi ci wolof nag di Dahiru Thiam di ngeen ko am ci suñu yeneen jataayu xibaar ñu wax ci leneen ca lumbal kaw ba nuy daloo nag case de santé bu bees ba defaraat gañ ko defaraat dafa daje ak soxna soo xam ne ñaar fukki at la am mu ñàkk bakkanam ba muy ñàkk bakkanam nag mooy ba mu doon mucc lool nag ñi nga xam ne ñoom ñooy ngutu ci wàllu wér yaram eh, ñaawlu nañ ko ñu ne case de santé boobu ñu fa taxawal eh, dina tax rek eh, jàppale askan wi rawatina soxna yi ak ndeete yi nga xam ne nemmeeku nañ ko saa yu nuy mucc dañ ci ànd ak Mamadou Moustapha Ndiaye ak Omar Ka askan wa yeewoo ca Fass Abdoul Aziz di dëkk bu nekk ci commune bu Thiamène Pass ñoom nag tey dañoo yeewoo ak njàqare ndaw soo xam ne ni ay atam mi ngi toll ci ñaar fukk di wuyoo ci turu Xadi Njaay moo ñàkk bakkanam bi muy mucc ci jamono jooju nga xam ne ñu ngi doon daloo cas de santé amélioré bu lumbal kaw maîtresse sage femme bu yóof ci turu Fatou Labo moom nag mi ngi ñaan jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci commune bu Thiamène Pass ñuy faral di dem ci bërëbu fajukaay yi moytandiku njur. voilà tey malheureusement tey euh, ñëw tombé mal vraiment ci ci am ci nouvelle bu naqari parce que tey instant bi nga xam ne ci la ñuy indi sage-femme bi pour xeex loolu tey jii ñu dégg na am na benn jigéen bu ci bu ci bu ci loro ci ci ci ci am doom ci ëmb ak malheureusement tey fi ñuy ñëwee tey xeex si loolu pour individuation mu jege population bi ñu am ci benn jigéen goo xam ne euh, am na am na ko ci lor tey ci ci ci ci ci ëmb ak imbi. kii nga xam ne ni moo di maire bi di Moussa Ndiaye nee na nag installation poste de santé amélioré dina tax ba yu ni mel dana wàññeeku lool ci commune bu ci Thiamène Pass. wallaay muy lu xaw a doy waar ndax ñun sax bi ñu yegsee fii lu ñu ko yëgee dañu ñëwoon rek juste pour euh, ubbi li ñu tuddee maternité rurale fii ci Lumbal incha allah xëy na jéego yu mel nii bu yaatoo ci Sénégal rek ñi nga xam ne tey dañuy mucc di ci ñàkk seen bakkan dana wàññeeku ndax lu ci bari dëkk yooyu dafa fekk ne donc ay maternité daf leen a sori amuñ béréb yoo xam ne donc dinañ fa mën a dem di matu ak yooyu ba finalement bu ñu jógee ba ba ñuy dem daara gi nga xam ne dafa sori ci ñoom lu bari day arrivé ci diggante bi ñu xalaat ne kon yu mel nii bu yaatoo incha allah ci réew mi rek ci biir commune bi danañ dem ba li nga xam ne mooy ay décès di ci ci ñuy accoucher dana wàññeeku. ñoo wax ci SONES mi nga xam ne fas yéene na taxawal liggéey yi nga xam ne daal dañoo fas yéene lu jëm ci ci euh, xorom soosu nekk ci ndoxum géej ñu dindi ko lañ ca bëgg rek mooy fexe euh, ba ndox ci gox yu ci mel ni Waka Mamel Yoff jàpp parcelle Assainies euh, ñu mën a am seenam ndox ndaje mi ñu ko doon amal ca monument de la renaissance ñu teewlu ki nga xam ne moom mooy Charles Fall muy directeur bu SONES ak Ibou Diouf. du Japon ak aussi teewaayu suñu partenaire technique JICA projet bi muy projet bu am solo si. Euh, wàllum euh, jumtukaayu ndox ci dakaaru ak li ko wër beneen projet bi ko wutu bi nga xam ni moo koy mottali muy Gessalma Gessalma mooy jël ndoxu géej gi togg ko ba nga xam ni nit ñi dinañ ko mën a jëfandikoo mu nekk technologie yu mucc jamono et mën loolu suñu partenaire euh, ñi nga xam ni mooy nguuru mooy royaume du Japon gunge ci Sénégal jàppale ko ci ci 137 milliards ci suñu xaalis loolu dinañu permettre ñu tabax usine bi mu nekk usine bu mag mu ngi tekki ni quartier yooyu yëpp muy Mamel Wakam di Almadi di Ngor di yoof di Biagi di Padoa di benn xaaj ci Parcelles Assainies côté bi nga xam ni mu ngi féetee ci côté ci booru stade bi ñooñu ñëpp tamit euh, dinañ leen jëlee ci conduite bi nga xam ni fa la ñu newoon muy conduite bu ndaw di 400 millimètres indi leen ci conduite bu 4 bu 700 millimètres bi nga xam ni moom la nguur gi ñu wax lu jëm ci wàllum mbas mi ak itam euh, cas positif yi nga xam ne dañoo nemmeeku dafa wàññeeku fi ci réew mi ombs nag di kuréel gi toppatoo lépp lu jëm ci wàllum wér yaram ci àddina wërngël këpp di sàkku rek euh, ci askanu Sénégal ñu bañ a naagu rawatina kilifa yi waaye itam plan de riposte bi Sénégal def ñoom rafetlu nañ ko euh, jëwriñ bu ñu denk wàllum wér yaram di dalal xel yi waaye itam nee lépp lu tukkee ci revue intra action bi dinañ ko jëfee bu baax Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye yi lañ ci àndal juróom benn weer ginnaaw bu coronavirus duggee ci réew mi Sénégal di xool lan la jot a def ci xeex mi ak ban taxawaay lañ ci jot a am dinañ wax avant mbas bi di ñëw lan moo fi nekkoon bi mbas bi ñëwee aussi lan lañ jot def bi mbas bi ñëwee aussi lan lañ waroon war a def te ko bi mbas bi ñëwee euh, aussi lan mooy vraiment li nga xam ne moom la ñu war a continuer pour gën a ñëwal xeex bi waaye aussi formuler ay recommandations pour li des ci xeex bi ñu gën ko lawal waaye aussi ñu xool avec post covid 19 nag seetlu nañ ni feebar bi wàññeeku na OMS di wax kilifa yi lu jëm ci wàllum xeex mi bu ñu bàyyeeku. heureusement avec les stratégies adaptées à chaque étape. plan bu nguur gi tëral tax na ba tey jii nii feebar bi wàññeeku na waaye loolu warul tax ñu naagu lii nii ay jàngat lañ ci war a def te jàngat euh, yooyu dafa war a am njariñ. Euh, euh, jëwriñ bi yor wàllum wérgu yaram jiite woon ndaje bi nekkoon ndakaaru def ab vidéo di dalal xel yi. li génn ci waxtaan bi ñu ngi koy xaarandi bu baax a baax ndax dina tax ñu xam ban taxawaay la mën a am ngir xeex feebar bi li ñu bëgg mooy ñu pare ak feebar bi ci réew mi. bi feebaru mbas mi tàmbalee ci senegal ba léegi lu ëpp fukk ak ñeenti junni doomu aadama feebar boobu laal na leen ci ñooñu ñu ëpp fukki junni nit tane nañu waaye lu jege ñetti téeméer doomu aadama ñàkk nañ ci seeni bakkan. ñu wax ci mbas mi ak tolluwaay bekkaayu bees yi nga xam ne am nañ ko fii ci euh, réew mi Sénégal amatina ñi nga xam ne ñoom ñooy ay euh, cas maanaam ay limub doomu aadama yi nga xam ne euh, ñoom ñoo amee mbas mi duñ ci sori dañuy teewlu docteur Mamadou Ndiaye bi ñu dénk lu jëm ci wàllum prévention ci ministère de la santé. ci junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent test yi ñu def fanweer ak juróom-ñeent ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci. ñaar fukk ak benn cas contact mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi fekk doomu jàngoro ji dañoo jaxasoo woon ak yi ñi yore doomu jàngoro ji am nañ ci fukk ak juróom-ñett ñi xam ne ay ka communautaire lañ mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu ku leen ko wàll walla fi ñu ko jëlee ñooñu nag seen lim nii la tëddee Thiès am na ñeent Yëmbal am ñaar Cité Djily Mbaye benn Diourbel am benn Kër Massar benn Xombol benn Kolda am benn Koungheul am benn Liberté 6 benn Médina benn Nord Foire benn Wokam benn Parcelles Assainies benn ak Pikine benn juróom benn fukk ak ñeent si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bës ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee am nañu fanweer ñoo xam nañu ñu nga réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb talaata fukki fan ak juróom ci weeru septembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñeent ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom benn nañ si ñaar ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak juróomi téeméer ak fukk ak ñaar si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ata ñuy dem ci li ci yéen kaay yi ñu wax itam atep Pape Massata Diack di doomi président Lamine Diack mu ñu doon topp ndoo way euh, waajuram ci euh, mbiram ger bi de ñoom it ne ñu daan nañ ko juróomi ati kaso yoo xam ne da koy tëdd euh, ba noppi itam dal di ngeen baal ma taxawal ab mandat d'arrêt gàll ko ci ndodda maanaam bu nu ko gisee dinañ ko teg loxo ba noppi moom Pape Massata Diack lanu ko toppee ci ndàmpaay lu mu war a fay mi ngi toll ci juróom benn téeméeri million ak juróom fukk Euh, ci franc CFA di sunu xaalis fii ci réew mi yegsi nañ ci ponk bu mujj li ci yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf hôpital dalal jàmm ba ca géejawaay la ko wër askan wa ko dëkkee nekk ñu ci jàmm l'observateur moo ko bind ci xët mu njëkk ubbil yéenekaay bi saxaar suñu noyyi mu leen di sonal la ñu ragal mu jural leen ay ñool ñool ci seen wér gi yaram am ñenn ci ñoom ñu xamal Alassane Anne bu l'observateur ne li indi saxaar si mooy waa hôpital dalal jàmm ya ñuy faje malade ya mu di dese yi ba ci ñiy faju ci coronavirus bi bu ñu ci noppee dañu leen di dajale dajaloo guddi lakk leen moo waral fu ñu toll di seen saxaar suy sëlsëli ñu koy noyyi dëkkee sa xët ak a fàtt guddeeg bëccëg madame Joséphine complexe hospitalier ca dalal jàmm di dalal xel ci l'observateur nee na askan wi ñoo yey amuk jaaxle bu noppi di sàkku ñu indi leen ay leeral ci li xew Joséphine Koumba Sarr ne li leer te leer moo di décès biomédicaux yi gët nañu leen lakk ca l'hôpital ba fan nañu leen di yóbbu léegi ak nan lañ ko fay yóbboo mi ngi koy leeral ci yéenekaay bi yéenekaay beneen bu xëyee meneen mbir mu togg askanu Sénégal fitna moo di journal Vox Populi askan wi jëfandikoo transport en commun yi la ñuy wax ne guddi yi ñu toll ñoo ngi dund lu dara jarul ne ñu bari ci ñoom bu ñu bëggee dem baa ñu bëgg a dikk duñu gis wata bu leen yóbbu ku ci góorgóorlu ba am wata boo dugg ci dëkk bi tax na dina jaar fu nekk ndax teggi bu metti vox nañu xëy na car sax ñoo xaw a tane ndax ñoom seen dund bopp la yor waaye watay Dakar dem dikk yi ak watay Tata ñi leen di jël ñoo ngi bëgg a dee li leen gën a rey nag bokk na ci place yu ñuy limité ci transport en yi ndax coronavirus gi laatr bi ne ko kay dakk na état bi teggi na mesure yi mu tegoon ngir wàññi limub nit ñi nekk ci wata ñu dellu ci la nekkoon mu di Sénégal moo nekk ci las moo nekk ci les mi ñu xamal ci xëta mu njëkk ne convoqué nañ ko tey jii ca kanam inspection générale de administration de la justice la ko fa yóbbu moo di mu wax ji muy wax ci presse bi fan yi yéenekaay bi nañu waaye convoqué googee ñu ko convoqué ca ICAJ neexul magistrat yi réew mi union des magistrats du Sénégal dañoo jàpp dañu ko bëgg a moo waral convocation bi def nañu communiqué di ca xamle ne danañu a convoqué njiital union des magistrats Sénégal neexul waa UMS ba tax ñoo ngi koy ñaawlu anki dina kay nañu président union des magistrats Sénégal gi ñu convoqué ca ICAJ ñi mu bokkal làngu UMS gi jàngat ba ñu ci moo di dañu ko bëgg a noppiloo sexal ko wellam ak di ko xoqatal Khalifa Ababacar Sall ëllëgam ci politique bi moom la journal Sud Quotidien xëyee la mu ci gis moo di avenir politique gu gàllgoose ne ay atam moom Khalifa Sall ñoo ngi dem a dal ci fraude douanière la ñu koy toppee moom ba képp ko libération wax nañu ko ba wax ñu ne PV de transaction bi ñu koy signaloo bu ko signewul kaso jëm li ñu koy toppee mi ngi toll ci ñeenti milliards ak lu tekk yéenekaay bii di l'info nee nañu moom la dajaleegum ngir dugal ko ci liggéey yi ñeel jumaay Tiwaawoon gi li ko tax yegg foofee moo di boroomi doole yu bari ci réew mi ñoo yëngu lu yëngu lu ne la ko yëngal ko ëpp doole yëral xëpp njëkk koo ne dañu koo jàpp ñu ko jàppee yoonam bàyyi fa examen ba ba léegi kenn xamul fan la fare ñu fare ji ci l'observateur xooli fa lu yéeme te doy waar li muy ne moo xew ca Tambacounda ba teere ji tribunal benn waay bu àndut ak xelam maanaam ab dof ñu jéggal ma ci kàddu gi moom la ñu yéene kay bi di l'observateur ne moo gagné pémi juróom-ñeenti millions 9 millions ak njabootam di xuloo ca xaalis ba ba coow la teere ji tribunal Lat Diop directeur général bu LONASE laaj bi di baadu li njóobeen yi jiite LONASE moo tax dof yi di gagné pémi 9 millions Mouhamed Ndiaye ñu sant ko bu baax gërëm ko sant leen tamit ci safo gi ak kóolute gi mbokk yi xibaar yi la woon ci télévision Futur Média rédaction bi dig leen daje ngoon ci kàttanu yàlla ci yeneen jataayu xibaar laata ñuy dem ñu jébbal lengee Mamadou Ndiaye ak Mary Bey waa li xew ci biir internet bi na ngeen def sama gaay ñoo ngi lay nuyu soxna Faty di nuyu internet yeeg euh, téléspectateurs yi wax nga ko waxtu wi jot na. yéen rek boo leen paree yéen waa rédaction bi ñun ñu ñëw tàmbali ñun waa li xew ci biir internet. ci kanam tuuti ñooñu ñooy waa équipe TIC technologie dans l'information yi de la communication ñoo fa yéene ànd ak yéen eh, ci li xew ci biir internet bi mbokk yi cant ak ngërëm ñeel na leen foo leen mën a nekk ci àddina bi jaajëfal nañ leen ci seen safo ak seen kóolute ñeendu jàmm.